kon Cheikh Ahmadou Bamba wala Xaadim Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar liiru jaan di anniversaire tey donte ku ne xam ne ñu ngi nekk ci jamonoy confinement coronavirus mais dagg nga sa itte yëpp ñëw lu waral loolu. waa mais loolu moom liiru jaan ko waral ndax euh, ku ñu xam-xam ñu géejawaay te liiru jaan dafa bokk si doomu géejawaay yoo xamante ni day tiitaroo géejawaay te ñun dara safuñu lu géejawaay moo tax tey bu xewlee lii lépp luñ jàppoon dañ koy bàyyi ma ànd ak suma xarit suma doomu ndey ngañ demba mi nga xamante ne bañ na dañ ko dàkkantale ngañ dem ba borom géej waxe kon defe naa ni buñ ñëwee si bésu liiru jaan wàcc nañu ndax liiru dafa baax nekk mag ju baax bu ñu fonk ñu daf ñoo fonk ñun ñun daf ñoo fonk daf ñu tiitaroo moo tax ñu bàyyi lépp ñoo fekk si ko fii. Xaadim Gueye lu mu bokk waaw Xaadim Gueye lu mu bokk ak Ndeye Gueye Ndeye maa topp si moom. Ndeye Gueye série Papa booy Djiné. waaw série Papa booy Djiné maa ngi moom ñu bokk Ndeye ak parce que dañuy dégg man yàgg naa dégg turu Xaadim Gueye wi mais yàllaa ngi doog a def ñu daje tey. waaw yàllaa ngi soog a def ñu daje. te dafa dafa fier si li mu doon. xam nga nit voilà nit mën nga doon dara sax mais da ngay tricher mais Lirou du tricheur dafa gëm li muy wax li ma si gën a li ma si gën a neex mooy dafa am dafa am benn dafa am benn benn slogan bu muy wax boo xamante ni xëy na peut-être li ko waral mooy bëgg gëm-gëm te Lirou dafa gëm Balla Gaye te ñu nit Balla moom mooy sunu lépp di sunu frère di ku ñu respecté. nit ku ñu jox cër nit ku ñu fonk man li may wax sax dama naan nit loo mën a jaay saf ma loolu Baye Fall. loo mën a sànni ci bésu Lirou jaan bii di bésu juddoom mu koy màggal tey ci 14 janvier bi nga xam ne moom mooy 2021. waaw bésu Lirou moom luñ ci mën a wax bari na ndax Lirou ñoo dëkkandoog moom mu nekk mag ju baax mag ju ñu fonk mag ju ñu jox cër ma yàgg ak ñoom lool yàgg leen a wat mosuma gis si ñoom benn sikk waaw xam nga xam nga bu ku lay wat ay at yu dul jeex kon ci ko booyar xam na ko waaw mu nekk nit ku dal nekk nit ku baax ku yëg nit nag ku bëgg géejaay gi mu dëkk waaw moo tax nag xam nga ñu nit ñu am fier ci bëgg ko parce que bëgg koo gis yëg a koy fay fu mu toog représenté ñu kon nag amuñu fayam di ko ñaanal yàlla bis bi yàlla na ko yàgg mën yàlla na ko yàgg fekke waaw di ziar ñëpp rek di ziar sunu frère bi nga xam ni sunu lépp la muy Balla Gaye nga xamante ni mi ngi ba màkk léegi léegi gis ngeen mu ngi koy woo appel vidéo ak Aziz sunu mag di nuyu Baye waaw di nuyu ñoom Pam Mama waaw grand jaw waaw di nuyu Omar Baas waaw di ziar di ziar borom taw féex moom it sunu mag la ju baax géej géejawaay ay kilifa fa dëkk yu baax yoo xamante ni dañoo fonk respecté ñu am ñu fu ñu teg bëgguñu. ba tey defe naa ne boo nee géejawaay di nga ne waa waaw égriwaal te égriwaal mu ko wax da nga wax Lirou Diane Lirou Diane ku ko xam-xam ko Alioune Seye numéro 2 mi bokk na ci ay problème champion maa ngi lay bëgg et dama laa gëj a gis sax yow. waa sëñ Babacar maa ngi lay ziar bu di la waaw di la jox sa wàccuwaay di siyaar bu wér wér ngi fi maa ngi sant bu baax a baax. naka yëngu yi. bu baax a baax. naka géejawaay. waaye géejawaay nga fa rek comme dab yaa waa di neex waa ñuy sant. 14 janvier 2021 Lirou Diane di anima fête tey anniversaire am. waaw dañuy sant yàlla rek euh, di julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax di ñaanal Lirou Diane mu yàgg di feete bis bi wax dëgg yàlla jantal grand la no problème liiru xam nga nit ku baax la man damay mal positionné sax pour wax ci moom wax dëgg yàlla ku ne gis na ni ma mel ak moom Lirou man maay moromam liir man maay moromam lu ne laa koy yekk lu ne laa koy wax lu ne laa koy def mais xam nga day day xam nga maag moom daal ñoo bokk ndey ak baay wax dëgg yàlla ma moog sama mag la woon xam nga sama waaw sama mag dem bàyyi ma ne ma dénk naa la liiru wax dëgg yàlla ba mu ma dénkee ba léegi barki Seydina Mohamed liiru su ma ko meree sax moom problème barki Seydina nee naa ko yow mun ngaa mun ngaa mere ku ne mais man munoo maa mere mu ne ma yow noo sama rakk waaw waa écurie Walo ñu ngi fa di waajal rek. lu ngeen di waaj. waaw ñu ngi waaj ñu ngi waaj Eumeu Sène ñoom Papa Boy Djiné am nañ komba euh, ñoom. Euh, euh, waa Macha am na combat. Mbaye Tine am na combat. Baye Mandiaye numéro 2 am na combat. booy am ko ñaa bu ndaw am na combat booy ñaa numéro waaw bu ndaw bu écurie am na combat. booy am combat bëri nañ Assane Thiass am na combat. xam nga ñu fi am komba bëri nañ ñu ngi leen ñaanal yàlla defal leen ndam ñi amul komba yàlla may leen combat te ñu am ndam ci barke Seydina Mohamed. ana Papis. waa Papis mi ngi fi. daal lëlu de. waa daal lëlu xam ma rek li muy waajal la. daa am ñuy def mbër man am nu may def moo yow. loolu supporter di def parce que su ma yaram su tàngee ba supporter ne liiru na wuu mel ni ku muy bëri dama moo tax nga toj gàmm bi. waaye toj eh, tojoti gàmm bi. toj naa gàmm bi tojoti gàmm bi. waaye gis na ma xamal la benn affaire. dafa doon wax sànq pare gu ma te doon wax si ku ma defaral daal yi. sama benn boy la bu nekk marché Ndiarème. marché Ndiarème sama benn booy bu nekk marché Ndiarème boo xam ne tubaarikàlla macha allah. nu mu tudd. waaw dafal ndànk sama booy la sama rakk la sama. waa Géej waaye waa marché. ñëpp waa Géej. waa bu bees. waa marché ndax ñun. waa lycée Limamou waa Thiam waa xam nga benn affaire la. waa amoo ya. waa amoo ba pare ma xamal la benn affaire Babacar Babacar baax rek am solo. baax de lu ko waay jënd jar na. su may wax ak te ma jooy Babacar. jooy nag sëriñ Fallou a jooy non sama xol moo fees tey tey sama xol dafa sedd. yaa ma mag de yaa ma mag de. quarante ans ngay fête est-ce rek nga am sax. Ah, non Babacar loo yow Babacar soo xam nga dara yow xam nga dara su ma la waxee benn affaire Babacar yow su ma la waxee quarante ina am da ko gëmul. damay laaj te di yow mi ko wax kay duma la wedd. non dama lay laaj. Ah, Babacar barke Serigne Saliou Mbacke billaahi wallaahi taal Babacar soo gisee sama mag bi ma bokkal benn baay doo ko gis Babacar man du ma mag barke Serigne Saliou Mbacke man du ma mag. billaahi xam nga benn affaire moo am euh, gis nga benn affaire laa lay xamal. Sall daa mel ni gis ko jafe na yow de. non non non Aline. non c'est sama xarit man man Guédiawaye laam gis man ma pa yow ma xamal la. gis nga adversaire nee ma ko defee yaa tax. a naa la li ma la waxoon noonu moo la ah, moo ma naqari nag ma ne sama anniversaire dama koy feete su neexoon bañ ko feete. waaye nag man doon feete def ko yëfi mag rek. li laa ci bëggoon voilà lii xam naa la sa côté très bien wéyu la bëgg kacapaa nga bànni nga saay saay xam nga ni ndaama nga man xam naa la sa côté ndaama dafay bëri solo Babacar xam naa la. waa léegi Babacar ñaanal yàlla corona nan ñaan yàlla corona bi dem Babacar nan ñaan yàlla corona bi dem Babacar yàlla corona bi dem yàlla corona bi dem ci dara sëñ Fallou Mbacké ndax Babacar su ma la waxee benn affaire euh, tey xoola xale yi mbër yi waxuma mag ñi sax mett na ci mag ñi waaye xale yi laa xale yu ndaw yi xam ne làmb rek la ñu am ndeysaan moo tax chaque jour damay la xale yi dañ koy booleeg métier di liggéey. ndax àdduna amul solo ndax tey jii xoolal làmb ji nii fi mu ne léegi ñu jëm un an bu nu bëriwul léegi mat un mu ci bëriwul suñu amul loolu ko amul ci loo jàpp foo jëm day metti moo tax euh, at mag ñi xam ni avance carrément ñu leen ko da leen a mosal rek mos moo fi am da gars yi dañuy mosalaate lu mos lu mag mos a gën lu mos mag mos baax na mos aayul boo mosoon dina baax man mos naa mosati ah, mos naa avancé rek waay waay Babacar yow dimbal nit ñi waaye wax baaxul waay ah yow nan bàyyi noonu mu seen yow am nga métier xaw ma du ma la laaj sax damay laajte. Babacar tey xam nga tey jàmm tey bisu jàmm laay la wax déglu ma waaw dama lay wax tey non déglu ma dama ma ay jàmm laay woote yow non yow yow am nga métier laa la invité waaw maa la invité man maa la xam fi nga nekkee man maa ñëw ba wër foire bi la man damaa def laa man huit la huit kilos may dóor non loo may dóore dóor ma li nga wax moo tax lu tax nga am am nga métier am nga mën nga koo bañ. baax na yaa ne mbëri dañu war a am métier te nga. man lépp laa. looy def luy sa métier menuisier nga mécanicien nga wala tôlier nga wala lan. businessman. wala du. businessman waaw Babacar waaw Babacar. Babacar bàyyi bul ma mer tey nekkul bi su mer. kenn meroo fi dañoo laajte. Euh, damaa am suma benn rakk boo xam ni il faut ma gërëm ko sant ko. Maadou Sow. Maadou lu mu def non affaire yi xam nga àdduna soo fi nekkee du affaire du question def-def yëg-yëg dafa am solo ci doomu aadama barke Sëriñ Fàllu Mbàkke billahi wala man ku ma yëg yaa ma moom ku ma yëg yaa ma moom noppi yabal foofu rek tooga ngay foofu am na lu ma dee yabal foofu rek yabal foofu am na lu yamal dee yabal foofu rek toogal jógal moo gét daa am lu ma dee moo gét moo gét daa am lu ma dee Maadou Sow am lu ma dee moo tax may la war baaxul sama rakk jam Afia moo Ndiaye aw ma seen fay eh euh, Mafal Baye Fall bu mag bi nday sànn oh, ay Mafal Baye Fall boobu yàlla ko yàlla defal jàmm ak ñoom Assane ah at ah, ah, ah, Ablaye Sarr c'est que xam nga leen moo am solo yëg-yëg rek barke sëñ non dóoruma la yëg-yëg bi laa dóoruma la yëg-yëg moo am solo gërëm naa leen ñëpp sant ñëpp waaye tey di sama xo daf sedd di gërëm sama rakk ji nday sànn sama rakk yi xam day bañ a feeñ ci écran bi ñëw kenn du mami ko kenn li nga gis togg yëpp moom la ay mami ay taalib sëñ Babacar si la waaw taalib sëñ Babacar kii toog xam nga ko ah wëli kii mooy wëli wëli wëli kii euh, nu mu tuddati sax ndaw sax mareem mareem mareem beneen nitu liiru jaane gi Assane Fall borom global textile borom tissu yu baax yi macha allah Seydi Assane maa ngi lay ziar ah, ñu ngi lay fay Babacar di nuyu waa àddina di nuyu képp ku leen di suivre waaw. liiru Diane tey Assane Fall dama koy dégg des fois mu naan Assane Fall borom global textile sa diggante moom. waaw ah, Lirou moom sama diggante moom day tàmbale si Xaadim ak Ngañ Demba waaw ah, ñoom ñoo ko présenté woon mu doon nit ku baax nit ku oyof nit ku yaatu nit ku bëri ne nit koo xam ne bëggal na ma boppam tey it ma bëggee bëggee naa nu ko raw moo tax lépp lu munti xewale rek. dañu bàyyi suñu ite teewal ko waaw. tey ni nga ni nga doxale tey nooy na de. sama doom ndey moo xewle. waaw Lirou Diane nee na nee na léegi yaay manager gis anniversaire bi demande la yow yow fu nekk laaj ko kañ ngay kañ ngay xewle tax tey mu organiser ba pare teg ko ci yoon nag ni ko gars yi santaane mu defee ko noonu respecté waaw six feet ni mu koy waxee waaw. mais noo loo ma wax si moom ban saaru nit la. nit ku oyof la nit ku la bari na problème torop nag bari na torop xam lu ko neex wa lu ko neex rek lay xam comme tey ni ma tardé la yónni ma baasilem jox ma paas joxu ma oto waaw baasilem moo ma tardé nii mais nit ku baax la loo ko wax mun na ko gérer waaw yow xam nga ci dara sax da ngay nii rek ne xam nga ci dara xam nga ci lu bari waaw. lu ma xam ci liir rek yow mën nga ko cee wax. dama koo bëgg kii. kii waaw koo bëgg xam naa loolu. liiru borom baax la. te jantal grand la. te dañoo bokk ay mbokk. bokk ay xarit. bokk ay rakk bokk ay mag bokk lépp. kon tey buy xewlee lu ma mën a jàpp dama koy bàyyi. ndax ku ne xam na ni fu nekk nii dafa xat. ndax xam nga diggante couvre fa ak business yi nga war a lijjanti dara xaju fi waaye lépp laa mujj annulé ñëw ñëwal ko ndax tamit nit amul lu dul nitam te man sama nit moom ku ne xam na ni fu ma toll day fës te sama nit fu ma toll dama koy niteel looloo tax tey ma bàyyi lépp ñëw taxawaayu taxaw fi taxawaayu Balla Gaye 2 taxaw fi taxawaayu Aziz Ala Ndiaye taxaw fi taxawaayu Baye Ndiaye taxawaay taxawaayu Pape ma taxaw fi taxawaayu xaarim Gueye taxaw fi taxawaayu Ngañ Demba taxaw fi taxawaayu géejawaay gépp géejawaay gépp nga fi représenté ñëpp laa fi représenté mbëru géejawaay yëpp magu géejawaay yëpp ñëpp laa fi représenté di ñaanal suñu mag suñu xarit bu fi nekkoon tey da ko fi gis mooy Daouda Seck Daouda Seck na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ak ñoom Balla Gaye de ñëpp a ngi màkk fi mu ne nii ñu ngi ñaan lu ñu fa ñaan rek mu nangu ñu ñaanal ñun ñëpp te ñu ñaanal leen ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm anniversaire bi nekk lu lu jik liiru jaan anniversaire bi gis nga dañ koo huis clos rek parce que nguur gi tamit daa am lu ñu aaye yaa ngi dégg bi mu moom tey dafa respecté mesures yi ndax nee na du nangu ñu koy mbam mukk ci dëkk bi ci loo xam ni du du yoon tey buñ nee mesure de barrière respecté na ko buñ nee anniversaire bi invité wul kenn dix personnes la fi invité te ku nekk xam na ni muy toogee xam na ni muy doxalee kon ni nga koy gërëm di ko sant liiru yàlla may ko gudd fan ak wér lii mu koy feete ay ati ati ati ati ati ati at ñu koy bat ñu koy yóbbu États-Unis di ko fa feetee ci kanamu Joe Biden wala xam nga ak président bu bees ba. mooy Joe Biden Joe Biden. waaw nga nag yow da ngaa dëkk Amérique te man xam yow. sax yow dégg naa yor nga kayit américain. yow dégg naa américain nga. déedéet waa jële na laal grand théâtre ma ne ko xamoo ki ngay bëgg a laal. maa ngi gërëm sama xarit nag ngañ dem ba kii toog. waaw kii tey sama borom mooy borom waay kii mooy moni dañ naan liiru monument waay mais man joxuma ko liiru man monument géejawaay bi kii laa ko jox. waaw moom dina ko nangu parce que kii ñëpp fa lañ jaar. waaw kii Balla gay dee ci kii la doon jaar suba ngoon guddeeg bëccëg. keneen ak keneen liiru laaj ko ba xam dina nangu lool liiru ngañ dem ba jël monument bi wala. gis nga. nangu na man de jox naa ko. naan la ku baax a nii. ngañ dem waaw. xoolal Ali Alioune Seye jox na ko sama xarit sama mag. nit ku baax nit ku gore Alioune Seye 2 dañ koy. kaar mais li nga bari na de. daa doy rek de. fot de sa bët yaa ngi jooy de. junaan doy. junaan ya ngay nekk rek réew lii benn nga ko bëgg a lekk. sa yoon nekk sama bis la. la nga fay ay pitax. Hmm, lépp ci nekk. lépp la ma jox. barke sëñ Bamba. dañu daje aéroport mu am lu max wax ne ma Afia boole nañ ba biig ca ngoon. non Lirou Diane moom bu mu ñëwee moom. moom ok avant tout damay nuyu ñëpp. di nuyu waa Sénégal di nuyu ki tax ma teew fi tey ki nga xam ni moo ñëw New York ñëpp bëgg ko. mu wane fa loo xam ni ñun dañ koy namm duñ ko gis ba mu ñëwee foofu wan ñu loo xam ne ñëpp ñoo ko bëgg ñëpp yàgg nañ fa ñëw mais moom ba mu ñëwee lu mu ñu fi wan moo tax tey ba ma ñëwee Sénégal amul lu ma mënti def te du ma ñëw fii fekkee bës bii. est gan gu neex a daloo la. non kii raw na neex dalal. kii raw na neex dalal. du wéy bay. du wéy bay. du wéy bay. kii du yeewi bay. du yeewi bay gay gan bu dul yeewi la kii mooy gan bu dul yeewi bay day ñëw daan naa nekk New yokk euh, di dégg ñu naan. ba mu nekkee foofu ay ngénte ngénte amul dëj amul am na fep mais kii ba mu ñëwee Baye Fall bu mag ba la toog dafa xool Baye Fall bu mag ba chaque jour mi ngi fa muy ma Fall fa lañ xamante man ak moom kooku mooy kii kii Baye Fall la mënoon la ñëw bàyyi loolu yëpp mais Baye Fall la wër ba mu ñëwee gis Baye Fall nekk ak ñun nag si lañ ko jox suñu bopp ñun tamit xam ne Baye Fall la koy dëgg te si ñun sëñ lañ yaakaar. nitu kese la tey nag buy anniversaire xam nga ni di di di am lu muy yokk si Lutte TV que am na lu muy apporter Lutte TV tey yoon la tey mënul ñëw. waaye man ak Lamine ak Mohamed au moins ñu teew fi rek mu nekk loo xamante ni daal maanaam pour symbole lay nekk daal mais daal ñu ngi koy ñaanal gudd fan wérgu yaram waaw di ko ñaanal nag mu dund dund ba ay sëtam di ko feetal anniversaire bi ni amin waaye Bokar amin loolu am na solo mu mel ni tamit dinaa profito laaj la loo xam ne nii defe naa fan yi gis nañ ko mu nekkoon ay détails ay ay wax muy ci entre su ma jumul mbër bu ñuy wax soq ak Lutte TV mbir moomu yow en tant que personne bu nekk foofu ci kër ga loo ci mën a leeral. sook moom avant dara dama koy nuyuwaat di ko ziarewaat di ko jaajëfal ba léegi rek ñu ngi déggante kooku tamit c'est un ami c'est un frère parce que ñoo bokk liggéey bi mais nit ku baax la parce que fi ma koy féliciter mooy bi problème bi amee automatiquement sama frère nga te bëgguma di def dara loo xamante ni tey day jëm Lutte TV nga nekk fa te woo ma téléphone ba laaj la moo tax ma woo la ma ne ko non du man xam nga la xanaa njaay article article la série Odex yow Odex xam nga moom moom yaa gën a xam day mais nag bi sax laata ma koy reprendre maanaam gars dawal nañu ko 7 de temps 8 de temps après mu reprendre article bi ba pare def source loolu maanaam boo nekkee journaliste boo ko defee rek maanaam da ngay libéré wu da ngay déchargé wu kon boo bindee article def source bi ne tel ko jëlee rek mais xam comme que Lutte TV la ko gisee wala ñu ko gis Lutte TV lañ ko gisee attaqué ko di ko di ko xam nga rek dugal dara ci boppam te loolu pour man jaru ko parce que mbër ak ñoo ànd ñoo bokk liggéey bi tey kon yaakaar naa ne malentendu la woon heure la woon mais defar nañ lépp mu rafet ci jeeg seek sook ma koy bëggewaat bu baax parce que sama sama la waaw. am na solo Boucar mu mel ni. di rancé waat si si maanaam bi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que il paraît que am na ñu nekkoon si ginnaaw di ko lii te ma si métti woon. loolu la sax amul ma déggoon ma la woo dama dama su ma kat lii xewoon na si sa ginnaaw def naa si lii def naa si lii parce que yaakaar naa ne ñoo bokk liggéey bi bés bu dellu si moo neex bés bu dellu si moo neex si jërë ngeen jëf bés te bés bésu jàmboor du bés kan moo xewle ñu ne ma liiru jaan kenn mooy liiru jaan ñu ne ma mani maaw géejawaay nee naa ko boo xewle àdduna yëpp xam nañ ni liiru jaan magu bàll ngay jëf bés te bés du bés ay liiru macha allah média bi yëpp a ngi nii yow daal jàmm ci yow waaw jàmm ci yow magu magu géejawaay mani maaw géejawaay damay jooy parce que xam na man xam na baaxut yow nag na nga fekk attention waaw waaw yow tamit xam nga. Mm. wax baax ngay jooy daal jàmm ci moom. waaw bul jooy lii bul jooy. non. Lamine wax la waaw eh, eh, mag muy jooy bul jooy loo eh, Lamine baa li nga def. xool bee fees lii la ngi jooy de doo leen ko téye. looy jooy bul jooy loo liiru attan. non grave looy jooy. sama xol boo fees rek. sa xol fees. barke Rasulullah. gars arrêté de oh. filmer ko bul jooy. ana xol la liiru lan moo lan moo la lan moo tooyal sa xol ba jooy nii. xol fa la ne xol fa la ne fii. non ga liiru bul jooy non Lamine attends. xol bi moo seral xol bi. liiru nga may ko ndox may ko ndox may ko ndox kaay